ñu dëkk di yàlla te sept mois la ñu war a am ci àll distance bi sell lool mbooloo mi mett lool tas amul tàndarma amul ndox amul bi na bi waxee def réunion bi def def déclaration ba noppi Ousmane jëkk tàll loxoom ñaan ko parole ne ko ala yel jaxasa man laa jël ku amul lu ma war ku amul lu mu war na ma topp joxe quatre-vingt-dix moom juróom-ñeent fukki giléem noo giléem bu ci nag gàll na ci jaasi gàll ci fekk gàll ci mbuusam mu seel ak mbuusam tàndarma ak ndox dégagé dégagé quatre-vingt-dix yu mat mu ne foog mu mottali ko cent dem ci naari góor yu mottale ko sax dal di daw nag ko parfois bi ubbi ko fa palaatoor bi luuf ko ci libidoor yi ñoom libidoor lañ daan yor fekk na dañu toog ni mu jóor ko ne bi di fa di fa ci libidoor yi ni ku yor kemb mu naan sararararar ci loxom mu naan Ousmane mënatu la def lu bon lu yàlla gis ginnaaw defam ji yàlla yàlla nga bàcceel Ousmane ci fekk la mu def lu xaalis si ko def kon nag gars yi wërsëg day fakk rigol la yor de comme rigol la day fatt su fattee soo ko déglu si wu rek mën na laa jural daal di dem laa ko que dépense bu yéex wala bu néew doole dina tax xaraa ci jigéen ñi ku fay fay mu yàgg nag dina juur dina juur kër gi tey kër gu jigéen nekkul bu yàggee mu tax tey kon kon tosangoog gi maye xaalis soo génnatee bay dugg rek ne asalaamu aleykum ni ci ne wala asalaamu aleyka ki ci ne wala asalaamu aleyki ndaw si fi ne su ko ñëwul nga ne asalaamu aleyna wa ala ibadina shalina wala nga ne ko asalaamu aleyka ya rasulallahi wa ala ibadina shalina daal di jàng xulalaaw benn yoon toog téere baa ngi waa ji ne la ba ma tawatee ne bi ñàkk mu digal ma ko doxal lu ma ko semaine mujj ñu dina di soxla félicité ma kenn soxla bokk na ci ngeneeri lixlaas ku ko jàng téeméeri junne yoon jot nga jënd nga sa bopp ci yàlla bu àllaaxiraa yàlla dina ooteel ci asamaani juróom ñaar ci suñu juróom ñaar maa ngi yëgle ne diw goreel naa ko ku mu amee àq topp ma maa lay sëy waaye nag téere bi ne na ci sarti àq jooja muy àq joo mënul woon a sëy wala àq joo xam ne ji jekkoo woo ko ba dee jot waaye soo ko mënee sëy bañ koo sëy kat jekkoo ko bañ koo joxe yàlla du la garanti dara ndax da ngay niroog ku ñaawalaate ku ñaawal yàlla te wax nañ ne li tax saar yu wàcce ndax dafa am sababu nusul xureesale yi ji wala ahbaar yahud wa nasara ñoonoon ne di yow na ngay mën a def dina oone nañ topp benn buur te nun am nañu ñetti téeméeri buur ak juróom benn fukk kaaba gi soixante trois këram lañ ca defoon ay ay statue taxul suñuy aajo di faj kon buñ ko joxee kenn na muy mel waaw kenn ko ku na mu mel chef lana rabbaka nu aaxee la përëm la wala daxab urus la wala sa benn tëdd la wala lu mu doon am nañu ne kooku mooy sawra laaj bi melaw laaj bi noonu la tëdde woon waaye daal laaj am na Abdullah ibn Salaam lama sami'a bi mukhriji nabi sallallahu alayhi wa sallam bi makkata dhahaba ilayhi wa qala lahu Abdullah ibn Salaam ko mën a jàngale woon yaayoo di la woon seeti na nabi nabi ne ko yow yaa Abdullah ibn Salaam mu ne ko waaw mu ne ko yaay aalim yasraba yaa raw ci Medina mu ne ko naam mu ne ko maa ngi lay laaj ci ak tawreet bi ñu wàcc ci Moussa ndax man Muhammad samay melo liir ngeen ko ci tawret wala amu ci mu ne ko balaa mën a ko wax nga wax ma sa borom bi ngay oote na mu mel na bi gat jur nit ñi ko melo bii nee leen huwa allahu ahad boo leen ñett yooyu parce que ñetti tur la huwa laaw ahadu walil muharibina laaw la asaabi lyamin ahadu la asaabi shimal wa kuntum aswajan salasa fa ashabu lmaima ma ashabu lmaima wa ashabu lmasar ma ashabu lmasar والسابقون سابقون شعرا جعلا فعلا خاما نبق من أسمائه متغرب للقيتين بشري منا منا تري بطل يلا نانا بس بما أفلو بفتي في بريمير أف مان كوي ديك في إير بما لكي تجكتني هذا من يمكن لكي أجمع لكي بخوا قاو دك بابا إير بانجي جيك seen ndesitu jant ba ci la ñu def rek ajjana heure boobu ci la àddina tukki ajuma à six heures vingt ci la àddina tukki mu ngi dajeeg weeru tamxarit dajeeg fukki fan tamxaritam moo tax tamxarit di ñëw dajeeg ajjuma bàyyi ma yëpp di ñu lekk dañuy tiit defe ne tey la affaire bi doomu aadama yi rek ñooy def suuf la ñu dem ñëpp a doyandoo defe naa ne benn piton ngi ci électricité bi boo ko najee lampe yi ci kër gi doyandoo mais du dangay ñëw nag fay lampe bi dé déplacé dem ci bële fay ko déplacé ñëw ci bii dindi nangul ko ñëw ci bii dindi weer bi ëpp déedéet alaaji Babacar Ndoy joxe na ko fi tay ba weeru koor jaan da nga defe na yow kii xiin bokk la kii taw loolu nga bokk da nga defe ne dafa am kuy xiin bu noppee keneen taw da nga defe ne kii dënnu bokk la kii ngelaw dafa am kuy dënnu tout simplement am kuy ngelaw da nga defe ne kii indi guddi bokk la kii indi bëccëg dafa am kuy indi guddi bu noppee kii indi bëccëg loolu nga bokk am da nga defe ne kii juddu la du mooy rey keneen ay dogal juddu keneen di dogal rey loolu nga foog da nga defe ne keneen ay dogal rey keneen di dogal dekkal dégg am da nga defe ne yàlla dañ ko relevé wala dafa am ku mu relevé nga defe ne yàlla dafa am ku mu relevé da nga defe ne yàlla dañ koy relevé wala wala wa aaxir wa baaxir ba baax ci fi jëkk-jëkk boo ko xamoon laaj ko mbiri yàlla danaan la fi laa ko fekk de ci fi mujjee juge nag bu ngeen dajee danaan fa laa ko bàyyi allahu ahad xaad boobu waaxid mais grammaire wu suñu borom kenn mënu ko contrôlé nu ko nekk làkke su dul woon làkk ci làkkin wu ko neex laa abudu ma taabuduuna wala antum abiduuna ma abudu kon maa googu du dugg foofu ku yaa waa kafir am na ñeenti maa premièrement amul lënt deuxièmement am coow troisième amul lënt quatrième bi am wax ju bari bi laa abudu ma taabuduuna kooku amul solo wala antum abiduuna ma abudu foofu la coow di am wala ana abidun ma ahbabtum wala antum abidun ma xul wallaahu xul huwa wallaahu waahidu est ce que xàmmee nga benn ak lenn iliman mën a gaaw ndax xam na ngeen benn ak lenn léeg-léeg nga gis benn bu du lenn mais benn bu di lenn mooy waahid benn boo xam ne nag benn la waaye amul dëgëre yi doon lenn mooy mbindeef mu ne kii dañ koy sant sànq ci fi jëkk ahadu la moo fi jëkk moo fi nekk ndi moom kenn xam nga bu ñu yëree nit bi ne la ku ne ci nit bi nga ne kenn kenn lu muy firi waaw kenn kenn ni dafa nekkandi waaw góore du sàll boo ko yëree nag ñu ne ku ne ni bi nga ne kenn kenn kenn ak kenn bokkul yàlla kenn la ba noppi di lenn xam nga lu tax muy lenn mooy kenn yow boo nekk ci yow kenn rek di nga def kenn doo lenn xam nga lu tax doo lenn da nga am loxo am tànk am bët am digg am génn am gannaaw yooyu parcib la bu ñu woofale formé la nga nekk ay kal nga nekk ay kal mais yàlla du loolu moom kenn la ba noppi di lenn am bopp amul tànk amul loxo amul ndigg amul ginnaaw amul kanam gis nga lixlaas gaa yi fekk li ñuy yu bëree bëree bëri duudu jàppal ma cinq quarante sept xaw ma quinze defe naa looy lu mu lay jox soixante la soixante six soixante six soixante six mooy laaw lii lam daam ak sa xeet mooy soixante six mais xulwa laaw baat yi laa yi yi araf yi boo ko composé soixante six dafay dellu seetee ci di yàllaat jeeti àllaaw rek nga tab ay yi cinq fa baat yi dix-sept fa kële quarante deux wala quarante nangam arab yi baat yi laaye yi boo ko composé mu dellu soit di lan di allahu gisal xulwa jóob li ci tegu waa kën xul huwa bàyyi allahu li ci tegu dégg xaaj waa kën qul huwa allahu bàyyi la xaq waaw kan bàyyi samat bàyyi la xaq bàyyi lam qul huwa lam waaw kan qul huwa lam yulad qul huwa lam yakun kufuwan ahad dara du moom gis nga gars yi boo amee tiis mbaa nga am naqar mbaa nga am njàqare mbaa nga am aajo wala nga di sëriñ boo xam ne yàlla nga doxale sa wërsëg ci nit ñi ñu di leen diis seen bopp ci tiis amul benn soxla amul benn njàqare amul genn jaaxle goo xam ne jàpp nga njàppal lixlaas tari lixlaas siifram bi ràq bu jëkk ak rakk bu ñaareel dëju bàcc ko bàcc ko nag di yoon doo bàyyi doo jël tur wi simple da nga jël ismu lëhëm bi dafa am ismu simple ak ismu ahzan tur simple ak tur wu mag soixante six soixante six soixante six mooy lii laam laam alfaxeer laam trente benn laam bi trente loo am alfaxeer cinq huit un soixante six kay kooku mooy turu yàlla wi ñuy wax allahu waaye boo ko bëggee forcé nag mu nekk ismu laxsan doo yem foofu da ngay calqué nag lettre yi muy quatre nga tab quatre yi teg ko ci soixante six mu jox la soixante dix soixante dix dal dina ko kur c'est vingt non cinquante du tal yan la dugg soixante six plus quatre soixante dix innama amruhu isa arada sayin an yaqula kun kuna ngoogu kun moo di lim la na asaka di ñu forcé nga renforcé nga renforcé les toria soppi ko wali ko lismul simple muy lismul a'lam kooku nag balaa koo def da ngay jàpp njàppam njàppam lixlaas njàppam lixlaas moo di ngay raxas seeni xul huwa allahu ahadun allahu samadu lam yalad walam yulad walam yakun له كفوا احد باسق قل ولو موي كريغا قل هو الله احد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لذلك برنت فاسم اسم السنكل 66 برميرا جنسل اسم السنكل 66 ثالث المنف اسم اللازم ويكون 66 du sell kooku mën naa fekk dëkk bi bu dul woon ak ñi nga xam ne dañ leen jox yenn yi dañ leen limité kenn si kon ñu xew di xew mais amul droit dafa am benn waay bu baax bu topp benn sëriñ bu mu yaakaar di ko laaj bismillahi alazam bismillahi alazam ba sëriñ bi di ko di ko lay di ko lay di ko lay ba sëriñ bi ne ko dinaa la jox charte yoo xam ne boo ko masalee ma jox la tur bi demal cosaan da nga ngeen du marché ba ngoon nga di xool nit ñi seen jëfante soo ko gisee jëfante bu la jaar soo amoon turi yàlla jëfante ka def jëf ja nga ñëw wax ma soo ko gisul nag nga ñëw wax ma waaj a dem ca ca marché une heure vingt góor gu màgget émission yu matam mu ngi mar mister pen ñëw ne képp sel bi commencé toox la ak ak ñu tëj kamat dañu tere fii ko fi ne mat ale mu jóg mu wéq ko doo gis sëmp loxo yi waa ji ñu bisi sëñ bi ne ko na nga def mu ne ko indu naa fa def mu ne ko loo gis mu ne ko gis naa loo xam ne tey su ma yoroon li li ma lay laaj fa laay defante ko mu ne ko loo gis mu nettali ko lii ma ko lii ma la wax sëñ bari ne ko gis nga waa jooju ñu doon kunta ba mu enu say wax mu ne ko waaw mu ne ko moo ma jox pour li may laaj pour li may laaj kookaa ma ko jox te amul du waa yëngu condition yi tax moom kay yebante bi boo ko gisee muñu yàlla rek la ah waaw waayu nit ñi yemuñu de fare nu ñu toog xool woo jënd bi dee déminition ni liraa bi def lu am solo kon allahu jë mubtada lay doon ahadun ji di xabaram qul huwa laahu ahad foofu laay yem damay boole ji laahu ak samad damay boole ji lam yëlee dëkk yëlam yuulat daal su fekkee ne nag huwa ji moom nga def mubtada laahu ji day nekk xabaram du sàllam ahadun ji nekk badal ci moom badalu nekk nag ci maarifa grammaire nangu na ko parce que laaw ji ismu alam la ahadum ji noo ko def donc tanwin na ci daal ko mun naa nekk place am na ki ngeen may laaj daal nee ma melal leen na mu mel nii la mel wax naa benn wax gaa yi bëggoon naa ngeen déggu dama ne yàlla bi mu dee yàlla ba noppi na nga xam ne nag c'est fini mooy yàlla léegi mu solu nu buy dem rek baax jàmmale ja musu bi yëpp mooy tëgg te toog yàlla bi mu dee yàlla benn xam ne doon na yàlla nag si fini doon na yàlla melul woon nag ni mu mel kon musibaam góor a war yàlla bi mu dee yàlla ba noppi xam ne si sëri doon na yàlla ba noppi xam nga loolu na mu doone yàlla ku mu ko doone doon na daal yàlla xanaa du xam nga yàlla day am sañ-sañ du diisoo bari doole du laaj ndimbal kenn du ko waxaal kenn sañoo wax barki démb Ousseynou Ndiaye Ilimani këri ko mu ngi waxtaan ci benn dëj naan na ma daal li ma jaaxal moo di yàlla rek a fay rëy mu jur jàmm waaye keneen ku rëy ku dul yàlla kaw li ne kur ma ne ko looloo war a ne yàlla rek a fi indi nit ku fi indiwul kenn nag boo rëyee kenn musul am waaye ku fi indi bu la neexee rëy nag wax dëgg yàlla am déet gisula wa ma rabbuka bi zallaamin lil abiid Cheikh Adi Mubarak rek la mais boo ko tuddee ni ñu ko tëjee dal di juum waaw waaye Cheikh di Mubarak tax xam nga lu muy firi duum so borom du ko bari tooñ du ko bari lu muy tooñ du ko bari lu muy tooñ kon dinay tooñ parce que Cheikh Adi loolu la laaj Cheikh Adi dañ ko chargé ndax su laaj yi bu ñu chargé def ko ruban yi jëlu ko ci laaj yóbbu ko ci ba ak da day daal di soppeeku am di raw am jàngkati nawu nga wa ma rabbuka sa borom day du koo xam ne dina toll lu toll ni tarkatal ay balaa nga koo gëm na firi la luy tooñ olof yaa ngi naan tooñ tooñ tooñ tooñ mais du du defe naa xamagoo tooñ pire tooñ mooy jëfandiku ci yëfi jàmbur te neexul borom turé turé turé dafa del turé dafa del Bachir Kunta dafa del turé ah waaw gis naa ko raay naaw turé suñu kilifa suñu sëriñ suñu doomi sëriñ doomi Sidi Haadi Touré di surtout Maulana Haj Malik ma xaaral ma jóg taxaw ah gaañ ma kay waaye li ngay sant Touré bàyyi rek kay fa la kay fa la ilaa wa annana alimtu an aqumu ilaykum sunna tabaraka jazakallahu na xayr Touré biir xur bi waaw kay waaw tooñ mooy jëfandiku ci yëfi jàmbur te neexul borom dina am na ci ñaari façon ëpp ko doole mbaa nga gannaaw tooñ mooy jëfandiku ci yëfi jàmbur te neexul borom ma ne dina am ci ñaari façon ëpp ko doole nag ko def ko ko wala nga gannaaw ko xaar bu mu génn nga juyàlloog moom def affaire yàlla nag li tax mu ne du ma tooñ lu toll ni tarfatal ay ni mooy lu mu filaal moo ko moom lu mu filaal rek moo ko moom lu mu filaal moo ko fii te doom ji mu rey sax moo ko moom kooku du mën a tooñ xam nga kuy law mooy remadu piréem dafa yaar mais alquran am nañ saakati alquran boo xam ne sarxaam mu ngi ko tuddee ba zilalul quran takkandeeri alquran parce que alquran a firi morom alquran a firi boppam am nañu ne semadu mooy weñ gu bolok bu amul pax na ngeen ko tuddee plein kay plein plein dara du dugg am de mais it dara du génn bu dara duggulee nooy amee doom ba dara dul génn nañ lay jure samadu gàttaleen wax bi am nañu ne samadu mooy koo xam ne ñëpp am ci yow soxla te soxlawoo ci kenn dara ñette naanoo jigéen ji masu seen xel yépp ci yàlla la ñi tëmbal gaal ga yàqu ci géej seen xel yépp ci yàlla la am na ñoo ñu teg ci kaw te daanu seen xel yépp ci yàlla la nekk ki bàcc te ne suba lay jëriñ ngelaw lépp yàlla la ko yaakaar foo koy samadu kenn ku ne ci affaire man nga ko ñuux si te ñuuxuma kenn sama dara يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله غني سفرت أنتم جملة جمالة سفر الله اسمه علم لدي مفرد waaw kenn ku wéet soxlaalul kenn dara ak toppal boo ñëpp soxla ci yow dara amul kuy dukkat ci kaw suuf te du am nga ci man aajo am ci kenn aajo antum yéen ñëpp yéen ñëpp yéen ñëpp fuqaraa way ami aajo ngeen ila laay jëme ko ci yàlla wallahu yàlla moom képp képp képp xaliin doylu na ankum ci yéen ñëpp ak seen lépp xam nga remadu ñu ne luy remadu li ñu remadu mu jaajuwaat ne remadu day su ngeen ko xamul mooy lem yeleet wala njuguleet inna insaana xuliqa xaluwan ñu ne luy aluwa mu ne isa masa u saru di soxam isa masa u xayru saakaku wala xalu mu ngay mu ngay gaaralaate ku mën a gaaralaate nag moom yàlla ndax alquran ci juróom-ñeenti kukk lañ ko rabbi kulóoru juróom-ñeenti kukk la yoon gaaral na léet na piiral na niiralu na def na istixaara def na jaas lu nee ak lu mën a am nag wala yarda li ibaadihi l kufr ak condition yu mën a am man yàlla dara laata ne eh bu leen fi rek wax buur bi moom lam yelit jurul kenn ma def wala mu yuwalat kenn juru ko jurul kenn xam nga mooy kan Mariama jurul amul dooma waaw kañ ku jur ay waaw kañ yàlla ne kon du Mariama du yàlla de parce que la yàlla day moom lam yelit de ñu dem wala loolu it yàlla kenn juru ko koo koy kan inse kon inse di yàlla dañ ko jur mariama di yàlla dafa jur ku jur di yàlla ku ñu jur doo yàlla yàlla moom sama waaw léexu réy la ba ne ko léexu réy la léexu kaanaa yàqulaa ne taam mariama du doon yàlla doomam jooju di doon yàlla parce que dañuy añ di reer dañuy añ di reer nag fi la yem waaye dañuy añ di reer mooy ku añ reer kañ di nga kii benn waaye benn benn benn benn benn poète bu rëy dafa am ku ko laajoon ne ko àddina tout tout misaal ma ko ci misaal bu gàtt mu ne ko yomb na ñaari baat rek la xalaaw wa xalaaw ne laa dina toog amul ñett nag addina yëpp njaq si la duus bi addina yëpp njaay noonu la de kaw dóor gi douche bi kiir kii ba xaw a dee ñu ñurub taal nga añ ba noppi su deux heures nga dem fii taw diir bi duus bi ولم يكن أحد كفؤا